sirraata allaziina an'amta alayhim gayril maxduubi alayhim wala daalliin amiin assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu maxfiratuhu yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di ziyaare ci bisu ajuma màgg bu tedd bi di seydil ayaam ñu ngi jàngante yéen diine yàlla sunu boroom ji subhaanahu wa taala te ñu bëgg waxtaane ci julli moom mi nga xam ne mooy azamul ibaada julli nag ngir ñu njëkkante waxtu wi ñu tënk ko julli farata ci képp ko gëm yàlla akub yonentam di ab jullit di wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah moom julli moomu ñëw na ci alquranul karim ñëw ci hadis borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci képp ko weddi warug julli na julli warut yéefar nga te dañ lay rey képp koo xam ne julli woo ngir tayal dañ lay gàcc julli boo ba ñëwee julli sariya da rey julli nag mbir mu rëy la ci sunu borom subhaanahu ndax ki gën ci mbindeef yàlla yi ne asalaatu imaadu diin alsalaatu miftaau kulli xayri sallallahu alayhi wa sallam nee na julli mooy kenn gu diine julli mooy caabi bépp yiw sallallahu taala alayhi wa sallam nee na man salaa isaa fi ljamaa fa ka annama xaama nisful leyl wa man salaa subi fi jamaa fa ka annama salaa laylatu kulluhu rawaahu muslim ki gën ci mbindéef yàlla yi sallallahu taala alayhi wa sallam nee ku julli ci mbooloo julli gee danga mel ni ku taxaw xaaju guddi ku julli ci mbooloo julli suba am nga yoolu ku taxaw guddi gi saxaabatu rasul bi ñuy wax muslim moo solo addis bi xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatu jamaa afdalu min salaati lfardi bi sabihi wa isrina daraja rawaahu ibnu omar ki gën ci mbindéef yi yàlla yi nee julli ca mbooloo mu ca jumaa ca jàkka ja moo gën julli beru ñaar fukki daraja ak juróom ibnu omar moo ko solo yàlla na ko yàlla gërëm ak ko muy Sidna Omar yoon saa nee na nit ñi bu ñu xamoon li ci nodd ak sape bu njëkk kenn du ko bàyyi sa morom dañ koy njëkkante am na sahabatu rasul bu màgg bu ñuy wax abdullah ibnu mas'ud qaala saaltu nabi sallallahu alayhi wa sallam ayu amal ahabu ila allah taala qaala alsalaatu ala waxtiha قلت سما أيو قال بر الوالدين قلت سما أيو قال جهاد في سبيل الله waaw sahabatu rus bu mag boobu mu sarri woona boobu ñi wee abdullah ibn masud nee na laaj naa ci gën ci mbindeefi yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam na ko jën jëf la yàlla gën a bëgg ci jëf yi mu ne moo julli ci waxtu mu ne ko bëcc topp mu ne ko topp say ñaari wajur kenn wax jaamu say ñaari wajur topp ci lu neex yàlla ak ban mu ne ko jihaad ci yoonu yàlla ba an jaabir radiyallahu anhu yaqulu samitu nabi sallallahu alayhi wa yaqulu inna bayna rajulin wa bayna shirk wal kulf tarka salaa jaabir jëlee ci jaabir mu ne déggee naa ci ki gën ci mbindeefu yàlla yi sallallahu alayhi nee na li dox diggante nit ki miir bi dox diggante nit ki ak yéefar mooy bàyyi julli julli nag tey li tax ñu bëggoon dawal li dañoo bëgg a taan ci baabu fi sang wi mais mun ñoo tëb dem ca te il faut ñu indi lu ko lu ko jëmal waaye tey looloo ñu toxoon na ju sant ndax julli de mbir la mu rëy moo xam ne yaa ayyuhan naas اهلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة إماد الدين ينن خملين سنو بروم سبحانه وتعالى دفن كنو يدين مي جولي واو جعل الصلاة وما أما حمود الدين وأمرنا بالمعافسة عليها لنكون من المفلحين sunu borom nag diggal nañu nu wattu julli ngir ñu texe waaw wa amarana bil muhafasati alayha li nakuna min al muflihin yàlla moo ñu diggal ñu wattu julli fonk julli toppatoo julli ak wàccaayu julli waaw wattu julli nag lan moo tax yàlla na nañu digal ñu wattu julli minal muflihin ngir ñi bokk ci way texe yi وهز عليها في الكتاب المبين te yàlla ñaaxe na ci téeréem bu màgg bu tedd bi bu leer alxuraan yàlla ñaaxe na ci xaala taala wa huwa asdaqul xaa'iliin te yàlla kat mooy ki gën a dëggu ay wax asdaqul xaa'iliin waaw aafi soo عافسوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين waay waay waay waay góorgóorlu leen wattu leen julli surtout julli gi nga xam ne mooy julli gi digg doomu ñii ne tàkkusaan la ñii suba la am na beneen hadiis dafa ne asqalul munaafiqiin salaatul isaa'i wa salaatul subhi ñaari julli yi gën a diis ci naafiq naafiq munu ko dafa jafe ci moom mooy julli gée ak julli suba ñoo gën a diis ci na ab naafiq waaw kon nag sunu borom dafa ñaaxe ci téeréem bu tedd bi ne julli leen watu leen julli surtout julli gi nekk ci digg bi borom xam-xam werante ko ñii ne mooy suba ñii ne mooy gée waaw فمن man فمن استغفر bi xadabi laa képp ko julli nag yaa ngi ci merum yàlla faxad rajaal bil sunoob wala asaam képp ko oyofal julli dugg nga ci merum yàlla te danga nga ci bàkkaar wa man taraka salaata salaasa salaasata ayaam falaa xafisa lahu fi l islaam képp koo xam ne bàyyi na julli ñetti fan yu ma sëkk yoo xam ne julliwul na ko leer na kenn du ko cëral ci islaam waaw wastaayi xësi wala asaabil mu yiin dana mos gàcca ak mbugalu mu taratan haafisu ala salawaat wa salaatil wusta wa xuumu lillahi qaanitiin waaye waaye góor góor leen ci waxtu julli surtout julli gi nekk ci diggu dóomu bi ñii mooy suba ñii ne mooy tàkkusaan alaa dama ne wa in salaata képp ku bàyyi julli faxad raja xisi wal bawaar dangay mos gàcca waaw toroxtaani ak gàcca waaye ma xaqullaahu anu risqa ki julli yàlla day màbb wërsëgam wa yas aba an wajhihi anwaar képp ku bàyyi julli yàlla dana génnee leer ci sa kanam xanaa gisoo gaa yi alxuraan ba muy tagg dafa ne muhammadun rasulullah wallazina maa wa asidaaw alal kufaari ruamaaw baynahum taraawun rukaan sujadan yabtaquuna fadlan min allah wa ridwaan siimaahum fi wujuhihim min asri sujud salika mazaluhum fi tawrat wa mazaluhum fi linjil kasarina ahrisat aw fa asaruhu fastaxlasa fastawa ala suxihi busra liyaqiza bihim alkufaar wa adda allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maxfiran wa ajran asima Muhammad ak gaa yu baax yi moo àndal Muhammad rasulullah Muhammadu rasulullah wa ne mahahu dañoo soxor ci yéefar ah bëggante ñoom ci seen biir ba nopp boo leen xoolee min asri sujjoot si sujjoot yi da nga koy gis ci seen kanam yi ndax dañuy xaar ba xaaju guddi wala ñu sujjaaw tisbaar tàkkusaan timis gee ba seen kanam gi leer nañ moo tax mu ne la ku bàyyi julli way ma xaqullaa wa anoo risqa julli yàlla dana màbb sa wërsëg waye sa aba an waj sa kanam doo am leer yàlla dana demal sa leeru kanam wa man tarakaha amara bi xadaa'iha ala safi jaanama képp ku julli da fay ci digg sa war fay na wala yardul hawd maal waaridiin képp ku julli doo root ca déggu kawsara ànd ak way root ya wala doo a naan ca déggu kawsara ànd ak way naan ya ca kawsa kawsara kon aafisu ala salawaati wa salaati lwusta wa xuumu lillahi xaanidiin waay waa wattu leen julli góor-góor leen ci julli dee leen taxawal julli surtout julli gi nga xam ne moo digg doomu nag ñii ne mooy tusbaar ñii ne astafurlah ñii mooy gee ñii ne mooy suba wusta salaatul wusta moo tax mu ne taarika salaat laa yaqbalu laahu amaaluhu ki bàyyi julli yàlla du nangu ay jëfam innama yataxabalu laahu min al muttaqiin ndax yàlla du nangu jëfi ñu dul ñi ragal yàlla kon na haafisu ala salawaat wa salaatil wusta wa xuumu lillaahi xaanitiin góor góor leen ci julli nag te fonk ko ta surt bi na ci diggu doom bi kon nag yow ma yunaadi l munaadi min xibalil maliki l alam ayna man tabia anil mahasi wa an salaan xana anam mu ne ana ñi nga xamee ne yu mu ne yow ma yunaadi l munaadi buñ dee bis penc dina am lu ci kanamu sunu boroom ne ana ñi nga xam ne bu jullu ju tee ñuy nelaw bu mooy yàlla ju tee ñuy yeew ana ñooñu waaw ana ñooñu tey manit baaxa waaw ndal maasi wa an salaat xat anaam ñi nga xam ne bu mooy yàlla jotee ñu yeewu ah te bur ju jotee ñu nelaw boo déggee ayya ala ay ayya ala salaa ayya ala falaa ayya ala falaa kan lay woo yow mi julit lay woo sëñ Sidi Muxtaar li mu njëkk a wax bi mu toogee jumaa yi pour jullit la te jumaa joo dem wala jàq benn sàppe nga fay gis wala ñaari sàppe xanaa xamoo laa salaata fi jaaril masjid illa fil masjid képp ko dëkk jàkk jàkka julleewoo ci jàkk ji amoo julli laa salaata fii jaaril masjid illaa fil masjid xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saddaxta ya rasulullah kooku gën ci yàlla yi moo ko wax muskàllaf de jullee ci këram fii amul ngànt bu ko defee amul julli am ñi nga xam ne nag bu moo yàlla jutee ñu yeewu bu julli jutee ñu ñelaw ah al yawma anta aqminu wa anta al aziz sonti xaam wusiqa minhu jahannama azabal wa wal xisla tey jii nag man yàlla maay aji fayantoo ji bis penc benn tur la yàlla di wuyoo mooy muntaqim man yàlla tey maa aji fayantoo ji maa aj tedd tey dinaa leen masal mbugulum jaanam ah ak gàccey ñaari kenn yaa lahaa min daari azaba almuhin dégg nga gaa yi ñu naan man de woo naa sama toroxtaane woo naa toroxtaane ñi isaab bu métti bi nga xam ne moom la ñu war a moom la ñu war a def ñu daawul julli e sa nag bul defee ne li ngay def julli la li ngay def du julli de da ngay liggéey ba mu neex nga wàcc ñëw huit heures sa guddi sa kër wala neuf heures boole tàkku sa nag sa géew julli woo loolu du julli inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquuta julli dañ koo rëdd ci ay waxtu nekkul ne yow ni nga bëggee nga koy defee ni yàlla bëggee yonent bi jàngalee ko noonu xoolal ki gën a sunu waaju tedd ju mag ji nekkul njaarim fii tusbaar timis gee tàkkusaan giiru dund gi mu dund soixante-quinze ans yi mu dund yëpp quinze ans la am fu mu toog benn place quinze ans diiru quinze an soixante-quinze ans ginnaaw bi mu dugal ci loxo tubaab bi waaw ginnaaw da nga naan ginnaaw quarante quinze ans la ma sa am fu mu toog benn place mooy njaarim ginnaaw quarante mu dugg ci loxo tubaab nekk prisonnier jàpp ko njaaram képp la toog benn place quinze ans fiix waaw suba teel ak mbubbam tàkkusaan ak mbubbam gee ak mbubbam waxtu yàlla sàkk mu changé mbub mu beex xusoo siinatukum inda kulli masjid xoola gars yi ay tiset la ñu indi ci jumaa ji tiset tiset tisbaar nga gis ku sol nga dem tiset ñu bind ci ab jour malaaka yi foto la nga tax ci sàpp ñu foto la yow parce que respecté wu julli waaw te julli dañ koo war ci ci awto sa waay sa yére rafet yi nga am nii sa gën a laay solo ko yàlla sunu boro moo ci gën a yey sa moroomu mi def yëpp nga koy solo ëllëg acca kon nag ñu bàyyi julli danañ ko fay ca bis ci safara bis moo tax mu ne woo naa toroxtaane toroxtaane toroxtaane gars yi bàyyi woon julli tey ñu leen di mbugala mbugala mu rëy mu ne haafisu ala salawat wa salaatil wusta wa xuumu lillahi xaanitiin gars yi respecté julli nag nañ fonk julli nañ taxaw ci julli surtout julli gi ne ci diggu dóomu ñii ne mooy tàkkusaan ñii ne mooy suba waaw wa taqoolaa aa wa taqoolaa xaqa taqwaahu tafuusu wa tafuusu bi ridaa kulli waxtin mu ne gaay nañ ragal yàlla dëgg dëgg ragal bu ko defee danañ taxe ànd nga gërëmal yàlla ci bépp waxtu oh al hadis xaala rasulullahi sallallahu alayhi fi ma yarawihi an rabbihi azza wa jalla nee na jëlee nañ ci ki gën ci mbindeef yàlla yi li mu la xanaa mooy hadisul xudsi yi waaw hadis bu mu jëlee ci sunu borom mooy hadisul xudsi yi waaw nee na taarika salaat malhuun wa jaaroo in radiya bihi malhuun ki gën ci mbindeef yàlla yi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki bàyyi julli ku ñu rëbb la ay dëkkandoom yi nga xam ne kontaan nañ ci bàyyi gi bàyyi julit ñu ñu rëbb lañu walaw laa ak hakimun adlu la xultu wa man yaxruj min zaarihi malhuun nee na sunu borom nee na su ma nekkul woon ko maandu su ma nekk woon ko xereñ walaw laa anni hakimun su fekkoon ma nekkuma ko xereñ ah lu te ma maandu la xultu kon danaa wax man yàlla wa man yaxruj min zaarihi malhuun képp koo xam bàyyi nga julli koo jur képp koo xam bàyyi nga julli torox ah, rëbb nañ la képp koo jur rëbb nañ ko waaye man yàlla damaa maandu ndax man naa bàyyi julli te doom bàyyi julli nee na maandul woon te xereñ dinaa wax ne képp ku bàyyi julli ku ñu rëbb nga koo jur ku ñu rëbb la waaw waaye law hmm, kon an woo xaal man sarru an yul xaal la aminan fal ya haafisa fal ya haafisa ala salawaati alxams nee na képp koo xam ne da ngaa bëgg booy dajeeg sunu boroom ànd ak mbégte ak kóolute nee na na nga respecté julli juróom waaw na nga ko waaw julli nag du kàbbar rek julli yaa ngi koy def ci ndox moo xam ne xet nga soppeekuwul melawa soppeekuwul xet nga soppeekuwul xam nga julli yaa ayyuhaa llaziina aamanuu izaa qumtum ilaa salaati si lu wujuukum wa ay aydikum ilal marafiqi wamsaxoo bi ruusikum wa arjulukum ilal kahbayni loolu mooy farata yi julli lu ci boole raxas loxo ndax dañ la melaw bi du soppeeku moo tax nga koy raxas boo ko timee nii xool xool ndox mi bu sonné danga koy xam bu vertier da nga koy xam bu dee ndox naturel la da koy xam loolu moo ko ci boole nga raxas sa loxo lan moo ci boole ñam di koy ñam di soj say bëñ ah cafke gi dañ ne la cafke warta soppeeku moo tax il faut nga dugal ko sa gémmiñ xet gi lan moo ci boolee saaxandikoo gu fiinu dañ ne la xetu ndox mi warta sappeeku lu dul dafa dëkk ak li ko sabbi géej la ko sabbi mooy xorom si dafa dëkk ak moom baax na ndox mi nga xam ne dafa xonq ci ban la ndox mi nekk ba tey baax na ndax ñoo dëkk li nga xam ne ñaay ci ñax la nekk mu yor couleur ñax ma baax na ndax dafa dëkk ak moom lépp lu dëkk ak lépp lu dëkk li ko soppi baax na lépp loo xam ne li ko soppi dëkk tëg moom munta jaamu yàlla ndax moom boo ko defee ma noppi nga toj barab bu laab sol yéey laab jàpp raxas ñaari loxo sëñ ma sëñ Bàmba jàngale benn jàpp moo xam ne nee na boo ko defee say bàkkaar day wadd ni say ah, ni ndox mi waddee la sa bàkkaar wadd boo ne bismillaahi rahmaani rahim di alhamdulillah gémmiñ arrahmaani rahim bakkan maaliki yawmi diin sa sa sa kanam loxo yi raxasoon nga xob nga raxas ba fi cooc bi ndax jikkoon ngaa def raxas loxo yi boo ne iyaaka naabud wa iyaaka nastahin ihdina siraatal mustaqim tànk na siraatal lazina anamta alayhim xayril mahdubi alayhim wala amin ku tedd ki nee na ku ko def ni ndox mi wàccee la say njàpp di wàccee loolu nag addis la bu mu way moom sëñ Tuubaa noonu la ko addis bi waxe njàpp day raxas bépp bàkkaar ki tedd ki nee ndax du ma leen wax ah ndax ko amoon ci yéen dex sa buntu kër bis bi yàlla sanga sangu ci fukk juróomi yoon ndax di nga desee tilim ñu ne ko déedéet mu ne loolu mooy julli juróom alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maolana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ayuha al ixwatu al muminuun بعد حديثنا في الأسابيع المادية عن العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي نود أن نتحدث اليوم عن المبدأ الرابع والأخير لدعوة الشيخ القديم وهو طلب العلال وطلب العلال تعبير يستحمله الشيخ القديم في كتاباته حين يتكلم عن العمل kama yastaxmilu taxbiratun mutaraadifatun mislu kasbi mislu kasbil alal wa iltimaasil alal wa talabul alal yaxtabiruhu asayxu waajiban diiniyan wa talabul alali fardun yantimi li kulli muslimin bi xayri waxami wa innama kaanat li talabil alal li talabil alal haasihi al ahimma li umurin minha annahu alwasilatu al asaasiya li akli al xalaal allazi yuyassiru al xamal yuyassiru al xamal saalih wa yatamasalu sartan fi xaboolihi فكل حلالا إن أردت أن تطيع الله ورسوله يا هذا المطيع لا ينفع علم ولا العبادة للأكل الحرام عند سادة ginnaaw bi sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen mbokk jullit yi ginnaaw bi nga xam ne waxtaan nañ ci semaine yi weesu ci jàngale sëñ bi yi ni nga xam noonu la sasee yoon wi ah, bokk ca la waxtaani woon muy xam-xam bu am njariñ ak jëf joo xam ne jëf ju baax la ak ay teggin yoo xamante ni teggin yuñ gërëm la tey nag ñuy waxtaanee beneen muy Euh, ñeenteel bi ma doon bi nga xamante ni mooy bu mujj doon ci li nga xamante ni Sayxul Xadiim moom la foon waaye yoonu murit muy sàkk lu dagan muy fàggu muy liggéey liggéey loo xam ne saw ñaq la ngir man cee jariñu mu yaatu ba yaatu waaye jur yi man cee yaa jariñu mu yaatu ba yaatu famille yëpp man cee jariñu dem ba caag ñëpp man caa jariñu loolu nag la koy indi mooy liggéey ah, kon sàkk lu dagan doon na ah, loo xamante ni sayxul xadim daana ko jëfandikoo mu doon talabul xalaal ci ay mbindam li ay mbindam mu doon loo xam ne nit ki dafa war a jóg liggéey daana jëfandikoo tamit yeneen baat yoo xamante ni yëpp tamit benn la rek muy kasbul xalaal iltimaasul xalaal talabul xalaal lépp doon loo xamante ni fàggu la muy nit ki ah bu demee ba nga xamante ni nag mësoor na ah, am lu ko war boobaa mu jóg nag fàggu ji xam ni àdduna noonu la ko suñ borom bindee mu doon koo xamante ni dafa war a jóg nag fàggu loo xamante ni nag moom lay tabaxee àddunaam kon ndaw lu nekk mag ko dee ci waaye rawatina mag eh, ndaw ku nekk war ngaa jóg nag sàggu ci loo xamante ni moom ngay mën a yore sa ngor ah sàmmee ko sa diine ndax lu ko may rek ah, yeneen safaan yi faral di am moom rek foofu lay mujj foofu la nit ki di mujj ndax nit ki du dundee xeer du dundee xobi garab kon la nga xamante ni moom lay dundee rek il faut que mu jóg nangoo yëngu ah, nangoo góor góorlu nangoo muñ ngir mu mën caa jot ah kon Sayxul Xadim def na li nga xamante ni mooy liggéey di fàggu lu dagan doon na loo xam ne warteef la boo xamante ni warteefu diine la kon dafa doon loo xamante ni lu war la nit ki war cee jóg sàkku ci ko góor ah, góorgóorlu bañ a doon koo xamante ni kuy bàyyi na ko rek la ndax bu benn nga def ko walla nga def njubadi wala nga wéeru ci ku koy def kon il faut rek nit ki kon war a jóg góorgóorlu ji ngir mu doon koo xamante ni ay responsabilité am yi mu war a jël da koy jël ba mu mat loo tax Sayxul Xadim ni sàkk lu dagan doon na loo xamante ni farata la farata joo xamante ni bépp jullit war na koo def doon lii ni mu wax nag nee na doonul ay defe walla loo xamante ni ay njort la kon nee na sàkk lu dagan bépp jullit rek war ngaa jóg def ko kon doon na loo xamante ni ci wartiifu diine yi la bokk kon nit ku nekk rek war ngaa jóg ah sàkku ji loo xamante ni loo mën a sutur la ci ci sa àdduna muy liggéey yi ah soo kee sàkku lu dagan nag am na njariñ li ak importance bi am na mbir yoo xamante nag mooy fondement bi nga xam ne ku nekk nag war nga ca góorgóorlu bu baax ndax day maye day joxe yoon woo xamante ni nit ki day mën a lekk lu lew te tamit day jàppal tamit nit ki bu jëfee jëf ju baax day jàppal nit ki tamit di muy mën a jëf jëf ju baax bi ci des tamit sart la tamit jëf joo nga xam ne da koy jëf suñ borom man ko koo nangul kon sàkk lu dagan doon na loo xamante ni dana tax nit ki mën a lekk lu dagan dana tax tamit nit ki mu mën a jëf jëf ju baax jëf jooju tamit sart sart bi tamit mooy ah sagam mi ngi sa lekk lu dagan bu jëfee tamit jëf jooju tamit suñ boroom man ko ko nangul kon su fekkee nit ki mi ngi lekk lu xaraam di jëf di di li muy def lépp doon lu xaraam bu wëlbatikoo di ñaan suñ boroom wala mu koy jaamu ah loolu kon du doon loo xamante ni ah, lu ñuy nangu la kon nit ki su fekkee bëgg na ay jaamu yàllaam di egg ah, lépp lu muy def suñ boroom di ko nangu il faut tamit mu nangoo di lekk lu dagan te loola moom dara koy may rek mooy nga nangoo liggéey nangoo ñaq ah loo tax sëñ euh, sëriñ Tuubaa ni di wax ni dee lekk lu dagan su fekkee da bëgg a topp yàlla akub yónnent bi yow mi nga xam ne yaay aju topp ci su fekkee bëgg nga doon koo xamante ni la ngay def suñ borom da nangu ah kon dee lekk lu dagan su fekkee bëgg ngaa topp yàlla akub yónnenteem waaye su fekkee nit ki fa muy dëkk ak la muy lekk ak la muy sol ak lépp wóor na ko ni doon lu lu lew bu dee topp yàlla tamit jëf jooja tamit day mel ne ah du doon loo xam ne suñu borom da koy nangu kon nit ki kon war naa góor góorlu bu baax a baax ngir topp ngir sàkk lu lu dagan di ko mën a dundee di ko mën a dundalee ak njabootam ah Sëriñ Tuubaa dellu waxaat ni du jëriñ mukk xam-xam muy xam-xam bu am njariñ wala jaamu yàlla ah su fekkee nit ki day lekk lu xaraam loolu moom boroom xam-xam yeeg gaa yu baax yépp ah dëppoo nañ ci ne kon su fekkee nit ki lu jàng jàng jàng ak lu jàngam kawe kawe ak lum mu góor góor góor lu góor góor lu ci jaamu yàlla su fekkee doonu ni la muy lekk lu xaraam lu la muy lekk su fekkee doonu lu dagan rek ah jaamu yooyu yépp tamit du ko jariñ dara xam-xam ba la muy bari bari du ko jariñ dara naafile yi ak jordu la muy bari bari tamit du ko jariñ dara kon nit ku nekk war na góor góorlu bu baax a baax ah la muy dugal ci biiram ak la muy jëfandikoo mu doon loo xamante ni wóor na ko ni lii kat góorgóorlu na la man ci fàgg loo xamante ni lu dagan la kon mbokk jullit yi ah, importance bi nga xamante ni liggéey am na ko muy sàkk lu dagan ah bokk na ci importance yooyu mu doon fondement boo xamante nii nit ki dina tax mu mën a sukkandiku ci boppam su fekkee nit ba mu waree jóg dafa jóg fàggu ji ah, ah, ak moyen yam mën a am mu jóg fàggoo ca dana tax nit ki mën a sukkandiku ci boppam ah sukkandiku ci boppam kooku di tamit dina ko may liberté bëgg ak di bañ waaye su fekkee nag ah, loolu amut nga xam ne nit ki dafa sukkandiku ci sama papa wala sama mag wala keneen ku mën a dem sukkandiku fa ah la mu koy bëgg mu koy defal kon liberté kooku day denc moom lool ndax nit ki moom su fekkee dem nga ba doon mu kàllaf ah, war a takk soxna war a def yeneen wala def yeneen te lu mu doon rek dan la koy defal boobaa kon yow amatoo liberté bëgg amoo liberté bañ day mel ni ci noteel ngay continuer di dox kon nit ki kon dafa war a am liberté boppam liberté boobu nag lam la koy la la koy may nga jóg góorgóorlu ci ah bañ a sukkandiku ci buñ ma defal lu lii du génn jamono ji dafa ci dafay def ti loolu moom doon pexe yoo xam ne dina tax nit ki dem ba doon koo xamante ni dina am liberté ci boppam kon nit ki dafa war a sukkandiku ci boppam sukkandiku ci moyen ngir mën a doon koo xam ne ko am liberté bëgg la ah di am liberté bañ di am liberté di mën a def waaye koo sukkandiku rek ah day mel ne liberté kooku day jafe lool kon kone ah, yi ñu gën a continuer tamit ci liggéey bu baax a baax ndax tamit dina la may tamit ah xew-xew yi di am tamit njaay yàmbaa mi nga xam ne bëri na ci dëkk bi lool te loolu lépp tamit daanaka gone yi rek ñoo koy def ah ay police ak ñu nekk di toroxtaange ju nekk di ci am loolu tamit la koy maye rek la koy waral mooy ñàkk dem fàggu ji jàpp ni yoon wi moo gën a yomb nga jàpp ca nga nekk ca yoon woowu te yoon la woo xamante ni yàgg-yàgg rek yoonu toroxtaange la ak pexe yoo ko mën a defee ak ko mën di lënkool di ko def tamit moo xam ci am di luwaaye ngay lënkool di ko def ak ñoo ko mën di def ni mu xewee ci suñ jamono ji ah waaye yàgg-yàgg rek toroxte moo ci am kon ñu moytu na ko bu baax a baax di nangoo liggéey liggéey moo lay may nga am liberté ah la nga bëgg nga koy def te Euh, lépp loo xamante ni teewu nag lii ba dëkk nag jël kilifteef moom il faut tamit nit ki di ko am ak lu mën di am tamit nay jël kilifteef ki nga xam ne war na ko am ci ay waajuram mu mu matale ko waaye téewul nag ah dëgg-dëgg boo amee rek respect dina am bu baax a baax. kon nit su fekkee mi ngi fàggu dina am tamit ba mën a am loo xam ne mën na ko yore boppam dana ko may mu wattu diineem dina ko may tamit mu wattu dignitéem maanaam wattu tamit teraangaam loolu kon liggéey rek moo ko mën a may ah ci dinañ déggee ci waxi Sayxul Xadim radiyallahu anhu bi nga xamante ni ah, bi muy liggéeyal yi Tuubaa ji nekk ci naal yi dafa digaloon murid yi ku nekk joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ci jumaa ji nga xam ne booba murid yépp la waxoon ni nan joxe loolu ah, bi nga xamante ni mu murid yi tamit ñëpp tamit participer nañ ci liggéey boobu mu doon liggéey bu mag tey jii ci senegal muy jumaa Tuubaa doon jumaa ju mag a mag ah tamit participer ci wàllu googu. bi nga xamante ni dajale nañ loolu lépp ba ñëw ba indi jox ko ah, mu xamal leen ni li doon ni dama ko dajale rek ngir dajale alal dong wala tamit soppi ko ci def ko ci jumaa ji rek taxut mu mu jóg. doo nit ni dama dajale alal ji ngir loolu rek waaye nag dama dama leen a bëgg jàngal leçon boo xamante ni leçon liggéey la liggéey bu am njariñ boo xamante ni nit ki day sukkandiku ci boppam da ko da koo def ah, ngir mu doon leçon boo xamante ni nit ngir nit ki di liggéey liggéey bu am njariñ boo xamante ni dana tax nit ki di mën a sukkandiku ci boppam mooy lépp loo xam ne war nga ko mën a def ci financement lekk naan sol foo dëkk ak ya ca war yépp nga war koo mënal sa bopp ah nee na da ko def ngir nit ki tamit mën a joxe tamit ah kàttanam koo xamante ni gën gaa sori ci kàttanam ngir mën a faj aajoy boppam nee na dama ko def tamit ngir ngeen di mën a faj seen aajoy bopp te lu dul ngeen di sukkandiku ngeen di wut ay financement yoo xam ne da ngeen koy wuti ci biti wala neneen wala yalwaan ak yooyu yëpp ngeen bañ koo def nee na dama leen di jàngal ngir nit ki mën a jox góorgóorlu gu mu mën di joxe ci boppam ngir mu mën a sukkandiku ju boppam mu mën a def loolu ngir ngeen mën a wattu seen diine wattu tamit seen dignité sëriñ bi ba mu joxee bi ñu joxee addiye yi ba noppi leçon bii la tiire nii looloo tax ma laaj loolu ah loolu nag bi mu fi jógee tamit sëñ Modou Moustapha jël na ko ah def ko ci jumaa ji kon ñoo xamal ni diine tamit ah gaa yu baaxee tamit toujours dañuy jàngal nit ñi ngir ñu mën a góor góorgóorlu xam ne àdduna ah ñaare fi nekk muy jaam yàlla ak liggéey waaye boo ci gën boo ci gannaawal rek dina am fu muy feeñee bu dee addu liggéey nga ginnaawal dina feeñ ci sa àdduna su fekkee tamit jaam yàlla nga ginnaawal tamit dina feeñ fi nga xam ne fa lañ jëm muy yombal xiyaam kon ah, nit ñi tamit ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax ci liggéey ah te ma noppi tamit ah, lépp loo xam ne yàq la tamit ak puukariwu tamit ginnaaw ba leen suñu boroom joxee tamit ñu moytu na ko bu baax a baax ndax liggéey bu barkeelee moom saw xeet ñépp dinañ ci mën a jariñu sa réew ñëpp tamit dinañ ci mën a jariñu su fekkee nit ku ko gëm la te yàq taxu koo jóg puukari tamit taxu koo jóg ah yéen mbokk julli tamit ci li nga xamante ni Seexul Basiir nettali na ko tamit jële ci Euh, sëriñ Tuubaa nee na sëriñ Tuubaa lépp loo xamante ni nit ki daana ko jëf di ko jëfal ba waxtu farata jot nga xam ni war naa jox farata moo xam julli wala yeneen farata yi nga xam ne farata la suñ borom teg ko suñ kaw ah loola du ko nangu lu dul ni nit ki dafa war a dem dafa dem ba joxe li nga xamante ni war na koo jox ci farata jooja fekkoon julli la ba waxtu julli jotee lépp looy def dala koy bàyyiloo ni la demal julli ji kon bu musaana taxawal julli tamit du nangu tamit kenn di def dara dara dara lu dul waxtu julli dafa ñëw ba noppi ba mat bañ julli ba noppi nga doog a dem ca lan doon def kon Sëriñ Tuubaa daa du far fonkoon na ndigalul sunu borom bi ba nga xamante ni daawul nangu waxtu jot kenn di def dara dara dara kon waxtu musaana jot loo xamante ni waxtu farata la da daan diggal taalibe yi ñu dem juux waxtu woowu ba noppi ah ñu doo ko eggale liggéey ba nga xamante ni doon nga ko ko defal su fekkee weeru koor la tamit ki nga xamante ni wóoru tamit du nangu mu bokk ci liggéey boobu kon loolu doon na li nga xamante ni noonu la fonke woon liggéey bi nga xamante ni ah moom la noonu la fonke woon ndigalu suñu boroom yi daan ko digal tamit mboolem taalibe yi yépp tamit jiital ko ci lépp loo xamante ni daanan ko daana ko def ah kon ñu gën a góorlu bu baax a baax gën a fonk li nga xamante ni mooy liggéey gën a góorlu bu baax a baax tamit ci jaamu yàlla ak santaane suñu borom bu baax a baax te xam ne ki nga xam ne moom lañ yaakaar ah di Sëriñ Tuuba ci loolu la nekkoon ah loolu tamit la digal mboolem taalibe yi loolu tamit la bind wàcc fi ah, mu doon loo xamante ni. ay doomam ñu ngi koy nettali gaa yu baax yi tamit nga xam li nga leen li bind na ko lim bindu tamit li nga xamante ni tamit ñoom la ñoom la doon dundal ñooñ tamit ñu ngi lay nettali loola lépp loo xam ni jax na nekk na ci doon ay jax-jax tamit ma nettali yi tamit léeg-léeg mu bari ñëw ci côté yoo xamante ni wàlluk yomb rek la yooyu tamit ñu moytu na ko bu baax a baax alhamdulilahi wa kafa أيها الإخوة المؤمنون إن مما جعل لطلب الحلال هذه الأهمية أيضا أنه, هو أنه الوسيلة الأساسية لاعتماد على السات الذي ينمن للأرخص حرية حرية الإرادة وبعينه على حفظ دينه وكرامته وهذا ما نفهمه من كلام الشيخ حين جمعت الأقساط الأولى min musahamati at baañi li tanfiisi masohil masjidil jaamihi tuuba inni la aqsadu min haasa mujarrad jamihil maali wa sarfihi wa innama uridu taxlimakum darsan amaliyan mufidan fi lictimadi ala saat wa basli axsa juhdin mumkinin fi qadaayi xawaayijikum bi anfusikum doonal ictimaadi ala xayrikum فتمكنوا فتمكنوا من عفس دينكم وكرامتكم ومما يجب أن تنبيهوا له أيها الإخوة المؤمنون ما قاله الشيخ محمد البصير من أن الشيخ ما كان يقبل في وقت أداء الفرائض ووجوبها أن يحمل له شيئا إلا بعد أداء إلا بعد أداء الفرائض وسقوط الواجب fa isaa kaana atalaamisatu isaa kaanu fi xidmatin mata uximat asalaatu laa yuxarriku ahadun sayan illa baxda salaat wa isaa kaana fi na fi nahaari ramadan aydan wa kasaalika man lam yusub laa yubsulu laa laa yaqbalu an yastaxmiluhu fi say rabbana atina fi dunia xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaaba naar rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laaxirati xasana wa qina azaaba naar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه اشالهنا من الخيرات يا الله